88.5 FM. jëf mbokk yi ñu ñëw ci seen rajo Baol Média FM li yitteel xibaar yi ci li nga xamante ne si rek moom mooy agression bi ci euh, Mbàkke Bawal jëm ci wàllu jakartamaan yi des na ko yaatal ci biir xibaar yi. ouverture école yi it euh, nga xamante ne si nar naa indi ay jafe-jafe xam naa des na ko yaatal ci biir xibaar yi. ci wàllu politique te avocat yi nga xamante ni ñooy avocat yi Sonko Ousmane Sonko def benn recours des na ko yaatal ci biir xibaar yi. li nga xamante ni si rek moom mooy xibaar yi bitim réew bu ko defee rek mooy daal di buural lii di xibaar yi incha allahu rabbi nes tuut ñu faram fàccee ko. FM. jërëgeen jëf mbokk yi dañuy daal di dellusi rek ci seen rajo Baol Média FM am mbégte ak kontante dellusi ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës rek li nga xamante ne si rek mooy jafe yi am ci diwaanu Mbacké boobe ba léegi jëm nag ci insécurité waaye rawatina ndaw yi nga xamante ne si ñooy xëy di dawal seen i jakartaman nga xamee ne agression yi nga xamante ne si day répété ci ñoom saa su nekk dinañ ci déglu ñenn ci ñi nga xamante ne si rek ay responsable lañ waa ci sax ñi nga xamante si si rek ñoom ñoo féete foofee ca euh, euh, groupe bu national bi euh, lëkkale mbooleem association yi nga xamante ne si rek ñoo nekk ci diwaanu Sénégal. su ko defee rek euh, xam naa nes tuuti rek dañuy daal di ànd ak euh, kenn ci ñoom ci ñi nga xamante ni si ñooy euh, responsable yi nekk Mbacké di wuyoo Ndiaga Touba ci lii nga xamante ne si rek moom mooy jafe-jafe yi nga xamee ni mi ngi leen di jural ci ay at yu néew. station ADECOM pour le développement des communautés de Mbacké di wax ci turu jakartaay rek muy mbir la moo xamante ne bii mbir la mu doy waar mbir la mu metti loo xamante ne bii man jàpp naa ne mi ngi door a ndax bu njëkk daanañ jàpp nit yóbbu motoom wala ñu euh, cor ko yóbbu moto mais rey maa ngi koy door a gis ndax fan yii am na ku ñu daggoon loxoom ku ñuy wax njori mais rey moom man yaakaar naa mi ngi door a am mbàkke la moo xamante ne wax dëgg yàlla na fa metti yem kenn mënul xam li jëf ji jëfe lu mu doon dafa metti ndax kuy xëy di góorgóor yor soxnaam nga yóbbu ci diggu àll rey ko façon rey wu am moto rek nga rey ko yóbbu alalam dafa metti trop mett na ci xol te ñun paaka mu ne sax bu ñu ko yoree ñu jàpp ñu dañuy fayloo ay 6 000 ko 3 000 francs te jamono ji dafa doon jamono joo xamante ne bii nit ki war a bàyyi sa bopp waaw war a bàyyi sa bopp kon nag dafa doon loo xamante lu métti la di lancé appel rek képp koo xamante ne bii yaa ngi dawal Jakarta na ngay bàyyi xel sa bopp te nga xam fi ngay dem te am na ci yenn milieu yoo xam ne dañ koy moytu dañuy moytu surtout loolu dañuy moytu yenn milieu ak yenn heures yi ndogal nag moom ndogal la waaye bàyyi xel bu baax a baax a baax tey sóoraale bu topp bu bi rek bay def loo xamante ne bii nag sul noonu la di wax ne képp koo xamante ne bii war a fépp fu ñu jàppatee ab sàcc gars yi nit ñi def nañ koy def ñun dañuy cor dañuy jam dañuy rey kon nag mbéjum karam borom moo koy fayal boppam gars yi nañuy fayu te bàyyi maslaa beeg yóbbu ay feneen ak feneen yooyu bu ñu yóbbooti fenn ku jàpp nañ def li ñu war a def ñun tamit waaw lii rek moo koy faj de mais bu ñu fi nekkee di def yi nii dañuy rey ba jeex tàkk waaw dañuy dagg suñuy loxo dañuy cor suñuy tànk dañuy cor suñuy bopp dañ yóbbu suñuy alal waaw kay dañu daal di des rek euh, ci foofee nga xamante ne si rek mooy Mbàkke Bawol ci euh, jafe-jafe yi jàkkaartamaan yi di am saa su nekk di ko naqarlu ndax it li ko waral moo di euh, ci alxames bi ñi nga xamee ni dañoo découvrir benn ci seen naataango yi kenn koo xamante ne si mi ngi daan dooleem di dawal Jakarta nga xamante ne si yitteem rek moo di jéem a fexe nu mu dundalee ak njaboot tolloon ci ñaar fukki at ak juróom di wuyoo ci tur wi di Birane gisee dëkk foofee ca Mbàkke Xewar Ndiayène ñu rey ko ci anam bu ñaaw foofee nga xamante ni si rek moom la ñuy wax caaween ca boori camp ba nga xamee ni kenn yaakaarutoon ne foofee dina fa mën a amee su ko defee rek ki nga xamante ni si it ba tey moo nekk ci au niveau national bokk ci kuréel bi nga xamante ni si moom la wax wax UNAM TS di kuréel goo xamee ni moo lëkkale bépp association ci diwaanu Sénégal président yi nga xamante ni si ñoo nekk ci Sénégal ci commune Sénégal gi yëpp lëkkaloo seen bopp benn dànk kii di seen président di Ansoumane Badji nekk foofe ca Ziguinchor yëkkati na ci ay kàddu. taxi du ah, maa ñëwaat tey pour dénoncer li nga xamante ni suñu mbokk bi ah, di nga xamante ni mooy Biram Biram Gisee Biram Gisee bu ñu agressé keroog barki Demba Ndiaye ci Mbacké ah, di ko ñaawlu di ko ñaawlu bu baax a baax a baax a baax parce que toll nañ fi nga xamante ni nañ ñu bàyyi xel ci jàkkaartamaan yi dañu vulnérable te loolu taxul tamit lépp li nga xamante ni comme agression la ñu ngi koy teg ci suñu suñuy élément loolu rafetul donc euh, à travers les zones rajo euh, rajo bi nga xamante ni moo ma ci jox tey euh, opportunité pour ma wax li nga xamante ni moo ma métti moo ñu métti sax au niveau national ñu ngi ñaan autorités yi ñu ngi ñaan autorités yi ne ñu gën a accompagner secteur bi parce que secteur bi nga xamante ni mu ngi engorger la jeunesse mais secteur bi nga xamante ne insécurité dañ ko fa gis insécurité bu garaaw a garaaw garaaw bu doy waar te loolu wax dëgg yàlla tey au niveau national ñëpp ngi taxaw di déglu ñëpp a taxaw di xool lan la gouvernement bi di def pour mën a au moins saafara li nga xamante ni agression yi ak vol yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di subir ñun ci biir secteur bi. waaw kay euh, ñu dellusiwaat rek euh, ci biir réew mi euh, loole di ay jafe-jafe kooku di Ansou Mané Badji mi nga xamante ne si moo jiite kuréelu jàkkaartamaan yi féete fépp ci Sénégal doon yëkkati kàddu waaye nag dellusiwaat ci biir réew mi kii di waa avocat yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk ci Ousmane Sonko déposé benn recours jëmale ko ci li nga xamante ne si rek tasoon nañ parti bi di Pastef recours boobu nag ñu ngi ko yóbbu ci Cour suprême. benn bi ñu yóbbu ko CEDEAO ngir rek euh, reeteet li nga xamante ni si rek moom lañ leen defaloon ki nga xamante ni si rek moom moo wax yooyu kàddu di maître Tall chargé de la communication mu doon loo xamante ni si yëg ñoom nee nañ teguwul ci benn yoon bañu tas bi parti la ca topp rek mooy ouverture école yi nga xamante ni si mooy ubbiteg euh, école yi euh, ñu am yaakaar ne xañ na mën na tabbi ci ay jafe-jafe yoo xamante ne si yaakaar nañ ne euh, li jëm ci wàllu campagne politique jëm ci li nga xamante ni si rek moom mooy élection 2024 mën na indi ay gàllankoor ndax sorewut dara ndax boo xoolee le 27 septembre 2023 bi ca lañ fas yéene ubbi li nga xamante ni si rek mooy bindu bi ci wàllu parrainage yi nga xamante si ay gàllankoor yu yaatu jëm ci wàllu politique ak lii di campagne yi eh, nga xamee ni ay weer yu néew lay doon rek ñu daal koy door ñëpp jàpp ne xañ na mën na mu am ay jafe-jafe. la nga xamante ni si moo ca topp rek mooy bilan bi nga xamante ni si fii ci Touba Mbacke màggal gi weesu ñu santaat bu baax Cheikhul Khadim waaye it eh, ñi nga xamante ni si ñooy charretier yi fi nekk di daan seeni doole am na bilan buñ ca def ci kàddu gi moo dundooy nekk ci jëwriñ ya muy corniche bi muy tali yi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi mujj na saret di transport bi ñu doon amal ci kaw lañ ko doon amale ndax boo xoolee ci peegu tali yi amuñu fenn fuñ mën a jaar ba mën a ba mën a teggi kon li ñu def mooy jaar ci tali yi ba àgg fu ñu war a jàdd rek ñu jàdd jaar ci biir ndox mi pour ñu mën a dem ci biir dëkk bi euh, d'abord problème la ba gis nga ne indi na sax problème ci ñi nga xam ne yàlla dogal na mooy pèlerin yi ñu doon màggal si yoo xamante ni Euh, wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñoo yore secteur bi metti nañu lool ndax lu toll ni màggalu Touba euh, ñun ñu yore transport saret mu nekk bu fekkente ne transport bi day cent quatre-vingt-dix di saret euh, màggalu Touba ñëw ab client dem di fay saret loo xamante ni méngoowul ak loo xamante ni bu dara xewutoon lu mu war a transporter la ci oto metti na lool metti na ci client bi mais en même temps metti na ci borom saret ndax contexte bi mu ko defee moom moo doy waar ndax dañuy wax ne bërëb moom la fa sës moo fa di ab ñàkk ñi ngi xaar ay travaux yoo xamante ni jàpp nañ ne bu ñu comme génn nañ ci màggal bi rek te dégg nañ somme bu takk boo xamante ni wax nañ ne def nañ ko ci dëkk bi ñu renf état di Sénégal mu renforcer Touba ndax dëkk boo xamante ni moom mooy deuxième capital du Sénégal vraiment méngoowul nag ak nii mu mel nii il faut ñu waxante dëgg waaw kay loolu nekk ay jooyante yoo xamante ni si kii di moo dundoo Ndoye eh, bokk ci ñi jiite saret yi fii ci Touba Mbacké doon ko yëkkati ay kàddu yoo xamante ni si ngir xam naa jëm ci wàllu jàppalante xibaari bitim réew mooy këmmal waaw kay ñu daal di ñëwaat ci xibaar yi bitim réew yi ca Inde benn tawat ju ñuy wax nipas moo leen sonal lool ca euh, Jakarta euh, ca école ya nga xamante ni si sax ñoo fa féetee mu mel ni tëj nañ ko waaye it euh, ndaje yi nga xamante ni si moom la nit def it fexe nañ ba fas yéene ko aaye ndax it tawat ju leen sonal lool mu doon loo xamante ne si ba léegi nii trouvé guñu benn vaccin boo xamante ne si mën na leen jàppal la nga xamante ni moom la ñu wax nag mooy joxe tawat jooja mi ngi jóge ci njugub ak li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu mbaam ca seen dëkk boobee. ci yëngu-yëngu yi nga xamante ni si moo am marok kii di président de la république bu marocain yi wax na ne dina def kem kàttan ba foofee nga xamante ni si rek mooy bâtiment ya yàqu ca dëkk yooyu nga xame ne tasaaroo na dina def kem kattanam ba daat koy tabaxaat bu mucc ayib na nga xamante ni si rek noonu lañ ko bëggee. ci xibaar yi bitim réew yooyu mooy këmmal li nga xamante ne si rek mooy xibaar yi di jaajëfal ñëpp ki nekkoon ci kàddu gi seen bokk seen xarit ndongale Moustapha Thiam feggoo fi ak ki nga xamee ni moom mooy euh, Modou Diop Thiat ca régi ba ci seen rajo Baol Média FM 88 point 5. bawal média consommation locale ca dëgg-dëgg rajo bawal la di moomeelu waa bawal bawal média rajo bi